man nag dama yaakaaroon béykat suñu ko yàqale premier su kale yàqale day dem wax njaboot kale bi day dem ci paara kale bi mu ne yow sa jur wi sa doom yàqal na ko bu ci defee effort bu jaadu ñu kam bu ci deful effort mu dem yoon su munee ne mu bay su mun bay mu dem yoon su demee yoon yoon lu mu teral yoon yoon ñëpp la nekkal fi yoon mooy régler problème yoon yu mu lu mu tere ñu ñu ci <coughs> waaye man du may dooma yàkkar rek ma jékki-jékki rek maa ngi fajal sama bopp rafetul xam nga tey tey tey su ma la tooñee sa mbokk ak sa jerbaat ak sa doom yëpp nga jël leen yóbbu si sama doom ak sama jerbaat est-ce que loolu rafet loolu nit nañu ko bay def kuma def yàq defu yàgg li mu wax déggal defu yàgg waaye yàgg bi moom defu ci effort ndax li ma la wax tool bi ci ay biir tool jàmbur la ne ay kër kër jàmbur la ne nekku ci jàtte bu tool nag su nekkee ci biir ay kër jur yi nekk ci biir kër gi il faut ñu laalaan ndax tool bi jur dina fekk ci tool waaye tool dina fekk ci jur tool bu ñu jëlee ci àll ba indi ko ci biir dëkk ci kaw ay gét kaw ay tabax ma yeneen su borom borom jur yàq la ko it kal yi football mun na ko yàqal ndax toolam boobu jatte du jatte ay ay pakka la pak pakk bi nga at bu ne di indi problème war nañ seetaat loolu. attaqué borom jur yi est-ce que loolu rafet bu dee def ko dund soo ko dundee suñu la yàqalee dangay dem négocier para borom jur yi jam jàmmalante comme ngeen a dekk mun leen kajaloo ngeen jàmmalante gen bëccëg ngeen ànd ngeen su ngeen mënee régler seen problème ngeen rek su ngeen dem ci yoon loolu rafet. Jubayru Ka ak musa Dia waaw sama sih lañ nyom nyari sama sih lain. Wow. ñoo ngi am nañu gaañu gaañu ñoo ngi ñoo ngi nii police ñoom dañ leen gaañ ñoo leen gor ñoo polis, police waaye dem demuñu hôpital est ce que lu rafet ah leen gor par nañ suñu suñu leen tee fii ne ñoo dem di faju di da ngeen bëgg préfet defal leen ay yu leer jur am saa bu leer jur yi am fu ñu jaar saa nam dem ci jat nam dem ci àll àll bi ñu may leen espèce par exemple kan bu ñu demee bu ñu amee saa am fu ñu sàmmi kam saa kes kes yoon kes kes yoon il faut dem ci kër.